dégg nga wax ah. waxante woon nañ benn invitation da ngay ñëw toog fii comme ça ñu waxtaanee liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy liggéey man xam naa ne yaa ngi liggéey <laughs> alors Yérim xam la moom ma jaaxal hmm. waa Pastef tànn nañu seen plan B hmm. yow ngay jàpp ne Déthié Fall mun na nekk seen candidat euh, électorat Pastef mën nañu ba tey Déthié Fall euh, Cheikh Tidiane Dièye il faut le surveiller alors que Pastef tànn nañu un plan B à la personne de Bassirou Diomaye Faye. Hmm. yow yi fi li yóbbu Sonko dafay bàyyi Bassirou Diomaye. ah lu tax du ko fi bàyyi. dañoo bokk solo. waaw man ak yow des fois nag vraiment <laughs> des fois nga waxu xale quoi. <laughs> waxu waxu xale. non waxu xale. lan Sonko lan li posé ci Sonko posé wul ci Bassirou. Bassirou il est électeur et euh, euh, éligible. et jusqu'à preuve du contraire mu bokk ci parti bu ñu. il n'est pas mu bokk ci parti bu ñu dissoudre. d'accord. parti euh, bu ñu dissoudre luñ ci wax. luñ ci wax. non wax ma. non xam luñ ci wax de. dañ fas parti bu lañ dissoudre dafa tax ñu nangu seeni mandat. <laughs> non soxna si. waaw. xam nga Pastef chaque jour ma wax ak ñoom te heure bu ñu demee rek ma yay leen su ma waxee ñu xëy suba saaga attaqué li ñuy wax affaire Sonko ma ni leen wuti leen candidat non xaw ma la nag lan proche xaw ma la nag lan lan xaw ma lan saba si fay xawma ma tout ça ma ni leen calmez-vous perdez pas de temps. pourtant yow nee nga yey nga leen bi ñu tànnee Bassirou Diomaye. Hmm. da nga ne yow yey nga leen. nee woon naa la Bassirou Diomaye la ñuy tànn waxoon naa la ko non waaw ah. voilà. mais léegi ñu mën nañu pointé li ñu waxante woon yëpp sama diggante ak Pastef tam ak si tey wala ñu ko wax. <laughs> ah bi ma waxee Bassirou Diomaye wax ni proche bu bokk tout ça am na benn waay bu tudd Amadou Ba xaw ma kooku jour boobu li mu ma wax moom. mooy d'ailleurs moom mooy le mandataire de Bassirou loolu xaw ma dañu koy waxee nit sax. kan <laughs> kan <laughs> Amadou Ba léegi moom daa xaw daa xaw a moo tax waa Pastef nag duñ ma nangul mais nga mën ci seen responsable bu woo waa Pastef dañ koy saaga dañ naan traite la quoi hmm. am na benn responsable bu la woowoon ni la yow ak Cheikh Yerim Seck waroon na leen déglu bu yàgg mais kooku li mu xel la ne yow au lieu que ñu ñuy diaboliser waroon ñoo déglu parce que li ñu leen waxoon yëpp ci émission bi dem nañ ba tekki seen bët. waroon ñoo <laughs> déglu bu yàgg. waaw waaw mais c'est toujours comme ça aussi. waaw mais Yérim yow yaa ne woon nañu wuti candidat. ba ñu tànnee Bassirou Diomaye nga ne yow yey nga leen. boo demee ba naan yey nga leen kay ça veut yow gëm nga candidature Bassirou Diomaye. Euh, soxna si li yóbbu Sonko du fi bàyyi Bassirou Diomaye ci képp ku bokk ci Pastef ñu disulur ko. gëw ma ne da nga mën nekk candidat waa passé faaw ñu dimbali leen ñu gagné temps ñoom sax seen stratégie loolu la xam nga bu ñu jëlee Bassirou Diomaye fay yóbbu ko directement mu def parrainage citoyen ñu garder seen parenage par des élus mooy ñoom xam nañ yëf yi est-ce que da nga wax bi parce dafa am beneen cartouche bu ñu denc te wax nañ dëgg